É grande, é nous découvrir album du est-ce que par pour découvrir l'album du best il nous a gratifié de 18 titres Cookies album bi annonce bi promotion bi les bi Yatuna. promotion bi Mesdames, Messieurs, nous allons découvrir ensemble ces merveilleux titres. suite. Grand Yoff est-ce que ça va. Grand waroon sa waroon seddee nii de. Grand Yoff est-ce que ça va. Malick nga da nga amoon benn côté ma amoon benn côté. dafa mel ni côté bi ba ah, pare ngeen ah. est-ce que

mais est-ce que nangoon ngeen dib dundu gis na dem foofu ma xool léegi na dem ci dib dundu gis ma xool. léegi na ko daal ñu xool let's go ah. yaaw waaw. ah bien da ngeen di sama gars yi waaw déglu leen déglu leen déglu leen. waaw ñoo ñoo ngi namu naa la léegi. na jóg ci dañuy commencé léegi léegi. baara dañ ñu may leen loolu ñu doog a commencé parce que dañu war a déglu album bi n'est-ce waaye déglu ma ne dañu war a déglu album bi war a po voilà voilà léegi nag may leen ñu DJ bi nga teg bi léegi léegi ñu commencé ah. en attendant Malick. waaw nee na dañoo am benn affaire bu. léegi léegi ñu géré Malick Malick léegi sama gars yi namoon ngeen diif ah. ñi nga namoon seen si kaw ma gis. léegi na lépp tàkk ci kaw ñuy xool na lépp tàkk ñu gis na lépp tàkk ñu xool yor luy tàkk ba si ginnaaw fële téléphone na tàkk ñu xool waa si ginnaaw d'abord lay commencé ñëw si kanam yé na lépp tàkk ñu xool waaw waaw ñu bëgg mu taxaw foofu na taxaw foofu na tàkk ñu xool sama waa côté sama waa côté ñoo gën a tàkk la mais yéen taal leen seen téléphone ma xool sama côté wala mais waa côté bi na tàkk ma xool waaw ak rukk bi na tàkk ma xool waaw yoroo leen Kaolack ah ok. dama ne c'est beau ça. mais Baara lii rafet na de. Baara. lépp fii la ñu fekk. lépp fii la ñu fekk. waaw sànq am na témoignage boo defoon. nga lépp Grand Yoff la commencé woon. waaw am na loo si fekkee si début bi. mun nga ñëwaat tuuti pour gars yi dégg la. ma ni. waaw. Grand Yoff la lépp tàmbalee. waaw te dañ naan fi lépp tàmbalee la ñuy dellu. waaw fii la tàmbalee. mosu fi jógee sax ba fiy dellu. waaw xanaa daf ko dëggalaat rek. Dip Doundou Guiss fii la tàmbalee rab fii ci Grand Yoff est-ce que d'accord ngeen loolu Dip Doundou dafa jaay drapeau Grand Yoff est-ce que dafa tax Grand Yoff bokk ci li nga xam ne moo di cadre hip hop bu Sénégal est-ce que d'accord ngeen loolu Dip dafa ñëw am lu mu fi am lu fi di loo xam dafa extraordinaire ah à travers les rap de rue Saïfa Saïfa yi ñëwal ci Saïfa yi non moom moom après a moom laa bëgg dina si ñëw dina si ñëw mais yow ay bonne mémoire li nga fekkee li nga fekkee ci Saïfa yi ñëwal Saayfa yi dafa ñëw. ñëwaat ñëw ñëwaat ñu ne ko bul compétir rëti n'est-ce dafa ñëw compétir. ñëwaat xamu compétir ñoom Iba ñoom Karim ñoom Adou Karim ne ko bàyyil compétir parce que du yàq ñii. non waxuñu loolu waaye sérieux kan moo ko fekkee ma xool bi muy ñëw ci dakaar sa day Saayfa yi loxoy ci kaw ma xool yàggu fa. waaw dafa ñëw rek jàll. ñëw rek jàll. ñëw rek allah. affaire yi métti woon ak mayu yàlla. Dip Doundou Guiss. maximum de pour Dip Doundou Guiss bay xool. loxo si kaw. kii mooy ñëw. samp poto bu leer nangi boo xam ne dafa dëgër këcc këcc këcc këcc këcc këcc. nee leen yaakaaruma ci kenn. ba pare ne ko def ko sa profil. Mbassa. def ko sa profil. pas sa couverture. def ko sa profil. Ah. yaakaaruma ci kenn bi ngi dal seen xel ba léegi de. waaw gëm boppam la def amul nijaay amul papa amul grand amul dara. yàlla yaakaar. waaw dig dund gis mu ngi nii. waaw bés ni ki tey jaar na fi. waaw ñëw nekk projet boo xam ne ba léegi mu ngi ci li nga xam mooy histoire rap Galsen. jaay mhm. fi moo ko def mu ngi nii toog. waaw ñu ne déetawaay muy dem. mu ne yaakaaruma si kenn. jaar na Kabana club. bii bii. waaw def na ko Dóor. dit def na Adrien Senghor deux fois n'est-ce pas. waaw j'étais laa lépp fi la ma fekk. histoire def na ko Dóor lépp fi def na benn concert ci mbedd mi ban koñ la woon dit. ay fii ba fële public bi fees dell est-ce que bàyyi ngeen xel loolu dip yóbbu nañu Sorano mu fees dell est-ce que bàyyi ngeen xel loolu mooy bi muy sol dàll bi naaj yu noir <laughs> dip nee na ñu dem si sees gis ngeen nu mu feesee woon dell dip waaw bëggoon nañoo yóbbu stade Léopold Sédar Senghor bu mooy ñu xëpp ci suuf xaara xaara xaara te waxoon na ko te waxoon na ko si ci son waxoon na ko waxoon na ko boobu dara xewagul ay bés ni ki tey. waaw mooy dinaa ay booy sànq dama jël ay booy ma di laaj ci Seneweb ma ne leen yéen lan ngeen di dafa xaaral balaa concert booy bi wax lu am daw yaram mu ne xa maa ngi doon xaar mu naan ay concert kii naan ay lii wala lee mu ne ma man dafa changé sama live parce que day ci biir à travers son am ci laay mën a avancer ci sama àdduna ana ñu Dip Doundou Guiss di motiver seen àdduna ana ñu diib dundu gis di yokk jom muy tar bi duñu bàyyi ana ñan la diib dundu gis tax tey jii ñuy xëy di dóor waar bañ a yaakaar ci kenn waaw ana ñan ñoo gëm sa bopp ndax kii toog mu di diib dundu gis waaw waaye diib léegi nag <laughs> ñu déglu li nga xamante ne gaa si ginnaaw di ko togg muy lépp fii la ñu fekk Malick xaar bi yàgg na Malick mais nee na xaar bi du yàgg ba ma loo ñeme ñàkk ni album bi dafa nice loo ñeme ñàkk yow man mii waaw ah. ma xool léegi dix mille dix mille dantaw dantaw génneel ok génne naa dix mille baara génneel dix mille fi nga taxaw kan eh. loo ñeme ñàkk fii niveau bi dépassé na ay dix mille ana nga ñoo pare pour jënd album bi dix mille quinze mille vingt mille vingt cinq mille vingt ñu ko pare pour jënd ay dix mille may xool xaw ma sa prix bi mais ana ñu yor dix mille ma xool après di ngeen jënd. waaw sama diim yi est-ce que di ngeen streamer. est-ce que di ngeen share. Ah. yeah. waaw ah, merci. sama gars yi namoon ngeen diim. merci ah. Zeyna. Zeyna merci ko. Malick ndeysaan kii dafa leen dig album ngeen di xaar. novembre bi tàngoon jër mais décembre gën a tàng. gën a tàng léegi nag en parlant de tàng. dès le premier. technicien yi nee nañ son yi pare na. dañ leen ñuy may nopp. ñu déglu li nga xamante ne mooy album bi ngeen doon xaar yéen ñëw. pare ngeen pour déglu projet est-ce que pare ngeen. DJ let's go. ak dégloo nag. intro album bi quoi jaajëf kiên chỉ ức cực cực cực sơ đâu mà chạy và chạy mà đông mà bực cực nước sân chừng đúng là tan mà thuốc sẽ không bëgg ma njëkk sëlëm rab takkatul ci sama xol daa tëju sama xëtër nga tam ay boyu ba ërtalu dab di sama doo ci sama jëmm tey laa gën a dëgër utal kër bi ngan di maamu Mercedes ak chauffeur des ka tam yu njëkk du mës a jëmbat ku leen gën a sëcc sacré faasi noon bi lay rey mun na jaasi fi sabilillahi jàgg du kàcc ba daj ma si ñun jaaj jin ngeen ma bon jin ma soxot jin ngeen ma yéefar ak illuminati li ma moom buy dem si keneen ku dul man mii c'est comme mardi gras buñ feetewul ci mardi ci biir kaa yi laa koy def ni Jimmy Vardy dëndam samay fut du feeñ mukk ci vardi yeer dara dootu ma defati dara am dam fi ko waroon

dara si diib dañ ñëw pour album bi tu dama bëggoon mu mel ni comme ñun ñu ngi si benn néeg teg album bi di ko déglu yéen a ngi parce que fii album bi yéen yéen a koy njëkk a si àdduna bi amul fenn fu mu disponible pour fii nii tey ñu nekk nii donc nañ déglu musique bi man mii man mii dama ñëw pour déglu donc nañ teg musique bi ñu déglu intro bi moo jàll bii di ñëw mooy quarantième jour déglu leen déglu leen album bi déglu bu baax. bit bi wanda moo ko def ak benn pro bi ñu wax big boss ay ñëwuma pour suuxat jaam waxuma ak borom xelu surga jaam 5 top 5 naa ñu bëri ñu ngi naan lan mooy top laajam dama taay ci bëre daan amatuma lu may prouvé faaw ma dem ci yeneen base mbër kaa ngi la may daan du ko am tuuti mbërëntaan dama job gis naa ay changement dama yow waaye man ak Fatuma dina jóg mbaam bu xaaja mooy sa yow bu fas jom kañ bu mag nga kan nga rey à part yow ay sànq lañ ak ay jongeen dëkkee kaaja naan da nga yoon lu tax ma gëj fi du ay maat du meleen taan UFC laajom dama tay ci bëre daan feesal fu xaak keebel bu kaati pexe njuñ njaaj yi nañ teefe su ndànk kees yi pax nga béy si àll duma gaynde guñ jaaj yeneen fi cante presque ñetti at di génnewul gàtt noo def ma tëmbal leen top 5 bënd bi jóg amuñ góomu xol ni gës seen moo dëkk si góom ko dëj sa xeer tëji ma not yi bés booy dee ma jiitu sa rëcc sa MC King la lëmbal la doon def ba prési jóg me ça. jaar ci nattu la ñu jaar ci lépp héritage bi mas nañ ma miraas papa sonu naa la dey maanaam soxla naa ko dey si gaanu xaj bi lañ ma yéegal ki xaar ma xaj dinaa naa la dey maanaam la yéegal ji balaa di saab di muti ji kaañ du feebar bu clinique di faaj ñam bi ni picc ci tab ñi di

fulu beji spahi kawe ci sama ru laay dund kenn du koray soxla ma tuulu bomb ak doole ca kër ga ak ci naaj bi destin la ñu jaar dogal ñu jaar ci ñu jaar ci jëpp héritage bi des mi ñu mirage papa sonal maa la soxla naa ko dégg si daanu xaj bi lañ ma yegg ki xaar ma xaaj dinaa la yeete papa soxla naa la dégg maa la soxla naa ko dégg si daanu bi lañ ma yegg ki xaar ma xaaj dinaa la yeete ki dee si ñaag yaa na dégg xaar ma xaaj dinaa la yeete snap ya le day sadi mane gala gay ko xal ma xadi na mu se yeen jafé ni sigi si naaj ni ko iblis di jaamu ni endu bu shiru ji ñaaw rappeur yi defal seen xel ni ma fop dañ yow seen fili bi tâche manga ni ndig bu paan say sidi tu caas te gis nga sa mu caat xam nañ fu xiir bi di daw fu seen bi aw ngay fen rek ni xin bu du taw maama territoire sama nigga mu nooraa sunu biir kon bàyyi ma sama way taay nigga jël sa distance middle finger I'm on my way side Stop for the top, I'ma limit compiling. You must take a lesson, nigga. Fuck some devil, hit them nigga. You know I'm coming. You already know it. You know that I'm coming. Nigga, I'm coming. Nigga, vi bokul në ngrëtë se ndigën Get up on the jaw do gjawë lë wërse gë gligën Oj o më wajë ngë wëjse më ndigën Aj se krengën Google up with this gisle bitch Gëdesi nga gë janë në dek Harë më khadi nga në jetë Yes, now I am day. Sadi money got a gotta To have my makhadi na na musayeta. Papa son na na day. Mano solo na ko day. Sigaro khad bilen yaker. To have my makhadi na na yeta. Papa son na na day. Mano solo na ko day. Sigaro khad bilen yaker. To have my makhadi na na yeta. Yeah, yeah, yeah, yeah. On a vu mon destin. Septième titre. ñu dem ci sama troisième featuring ak Moré son bi ñu koy woowee doon benn ñu dem pour doon benn ñu wàcce waat nànk acca moo moo bu fekkee mu ngi fi acca acca ñëwal ñëwal ay gaay gi moo gi moo da ngeen ko wax bu a bi ma la gisee dama xool ma beeg sama xool bi naat. ci ay toñante ñoo ngi foo di rek toog waxtaan. ma jëndee li ne ci sa xol nga koy nëbb mu lay gaañ. nañu doon benn lu ma am jox la loo wax. kaa ñu dem ne ma waawaaw dama bëgg ñu sëy sa ndaana xol bi yaa fi fees xam nga ko you know dama bëgg ñu dem dem fu sori loo bi ma la gisee nga may xool di ree sama ñu wextaan ci sa bëti laa gisee sa mbëggeel xam nga na xoma non non non bi ma la gisee dama xool ma beeg sama xol bi naat gi ñu ngi foo di rey toog waxtaan. kañu weccoo. ma jànneer li ne ci sa xol nga koy nëbb mu lay gaañ. nañu doon benn lu ma am jox la loo xam wax ma. yow sama Sadio Bane kaay wuy ma. ma dëkkee di la jobe kaay kaay wuy ma. bee su réeru amee ñu toog waxtaan. ma di la nax tete ba nga kontaan.

Thank you, big bro. Gars, maximum de bruit pour moi, s'il vous plaît. son bi nag mooy son fancy dañ ko dagg dañ ko xaw a dagg rek pour ñamal leen si tuuti rek maa ngi koy tuddee sama nigga quoi son bi laa may fancy dip képp kuy fancy dip si àdduna bi son bi yaa ko Need to yell honest, so a nigga, so a nigga, so a nigga, so a nigga, so a nigga. So a nigga, so a nigga, so a Yeah, it goes out to my niggas. Yeah, I ride alone, but I ride with my niggas. I will die for my niggas. I'm too proud of my niggas, for my niggas, for my niggas. Some niggas, some niggas, some niggas, some niggas, some niggas, some niggas, some niggas, some niggas, some niggas. So a nigga, so a nigga.

Santiago, Malana Plon, Sama Shady, Coco, Malabugaya. Baby Money I'm getting up, not baby guy, why? Money, yo, yo, Gani, ya, ya. We're the same material, life, and non-why. Baby guy, why? Money guy, why? cause he living not Let's go. xàmmee la koy mbugal lëm daju moo ki nga xam ne dee moo gën a dëgg xol xarit dëmul la chaque année moo koy gën a gëm ndax mbëggeel du jaay divorce du fay jot ñu ko jooy mi raas ba sa jàmm faaw nga sori ñenn ñi xarit bu jege gën a jekku ennemi dëgg nattukaay jëf du change melo comme ñu du sutura rek jëf lu bon a tax nit njëkk nëbbu lu tax nit gën di fekk mala yee ñu gën a dëggu ndax sa jikko ju daa ëpp sa yeesu ci kaw suuf ci kaw suuf bi lay nga ñi gën sa waa ji lay jaay noonu bi tax nga ñëfe moo gën ñi lay wër di lay fen jaru topp nit ku intérêt àddina àddinaam ñi di dagg sa yaa tax seen paaka ñaaw soul. No my soul is sometime. No my soul is of mine. No my soul is of mine. No my soul, no my soul. du bëgg ngeen may bruit Hirsa moo nekkoon ci suufu xawmi moo nekkoon ci suufu yeneen waay am na affaire yu bëri yoo xam ne job nañ ko mu ngi si biir ñëwagul ma bëggoon ngeen suivre bu baax Hirsa mu ngi waajal projet yu bëri bëri bëri bëri bëri bàyyi ko xel bu baax ah jëf gars je voudrais dire tout juste félicitations à Khalifa ma bëgg yéen ñëpp ngeen tàcc ko bu baax baax a baax c'est un grand c'est un bosseur il est loyal Hein? c'est quelqu'un qui a un grand cœur aussi xam nga donc gaa yi ñëw dégg ngeen xeer sama ayca. ñu dem ci douzième titre bi wàcc naa pare wàccoog yéen. hey. I need que temps yi da nga raar gis nañ mandi kat bu wàññi mi bàyyi mandi ak raat noonu ma bëggee xaalis sama rakk bu lay bu lewul tamit na ma dal yore boo duggee ajana ajana tàbbi safar daa si géej gi munul mandi fa nga laab moo tax ma ne wàcc naa pare wàccoo bien ñu wàcc naa pare wàccoo bien wàcc naa pare wàccoo bien dëgg ni wàcc naa pare wàccoo jërë ngeen jëf wax ji gëmeen tunaan dëgg may suuf si tax bi gis nañ man di kat bu wàññi mi bàyyi man di ak raat moo dama bëri xaalis sama rakk bu laye bu lawul tamit na ma dal eh, yore bu duggee àjjana àjjana yi tàbbi safar laa si jël nga mënul man di fagal laa moo tax ma ne wàcc naa pare wàcco geen ni nga wàcc naa pare wàcco geen ni wàcc naa pare wàcco geen ni nga ni wàcc naa pare wàcco geen da nga foogoon ni que li ma jiig la tax nga bersa daara ni nga ki bis ni la jiitala siif te yow kese fi sa kàmb gis nga mala si wol ngul frene bi tesu kar bi le holo be up police am si pen flow bu ma up li puli nan si mew bu ci loxo bi chemise taxi vest ki fenn bu gemi ñam di xej kare bu gat bi to tas ci do mu tal taxal bu kere nan ful, c'est claque les dents, la drum, c'est casting si poche bi la ñuy jàppee nit nga jàppee nit sa bopp muy teg sa kaw ay stratégie ñaata million lañ ma fi dóor mais bon ñi tedd ñëpp jaar nañ ci nga wax si ñoom da leen di classé ni ex ku leb ak yomb jot après mu jaafe ni fay ak noo mënti jàppee nit day xëy bis laate bis fay fen da jàppee ni glace booy amul glace bu dul seey divorcé aras moo ma gënal sëy bi tas bi su penc du xar moo waral tabaski état di glace yi ñuy rey kuy tuur deret war na mën lokko lokku gàcce dul rey ñun suñu salaire ba tey bët ku am luy rey sa bët mënul ñàkk jàng yu fee njëg yéen a néeg moo taxit bis naa fanaan fi mu yéen a ñëpp ay yéen a ci biir ci biir kàkkatar ca ka yéen a dimbali ñi joxe góomu xol nakat di gën di ñëw fekk xamuñ ni que moo gën si ñoom dëkk sa kër ñuy xiif gënul nga gëj fa ndax wër million waaye dee jël du yoot moo tax lu ñuy togg di xëm di ñor man xam naa lan laa yëg te xam naa nan laa mel ma dégg xaw ma kañ laay dee xam naa la laay def dund mooy daaj boo dul mës a tàmm ndax dee moo koy dagg loo mandi mandi boo koo gis néew sa daaj yëpp ay wàcce ñàkk xam lu xew suba moo tax may gëmëntu di joob bañ xëy rëccu di jooy mag samay doom du dëgër suñu boor ci ñoom gis sama defet mu leen gënal jël ay coupe du monde may jël ay coup si xol ak man di gën a dëgër doon ni ñoom ci ko nit dëgg buy génne borom rek këkër bu lu ñuy nëbb ci seen gémmiñ moo fees dell ci seeni bët bien sûr que bokk te doo mas bokk si diplomă și zile par palme tulpacă din am Și mu nekkoon seetu léegi ñu dem si Sinaka Sinaka Sinaka lan sinaga, sinaga lolo, sinaga, sinaga lolo, sinaga, daddy game be sinaga, cousin king be sinaga, sinaga lolo, sinaga, sinaga lolo, sinaga. Kuliate gembe, del simbe gane di bafe timbi. wembe nye mafis kanye tim dip, bengale wate la beke sen bit, Rolls Royce flow lo du Toyota bitch, sama yon ci sa joyok naaj ci nigga drip fer courant du toyol naaj bi duma one expert, bet duma jobal narbi, bi dama dugal duma fa ak 지나가 Sinaka, Sinaka, no, no, Sinaka. Ah. NMC, <laughs> you know the vibe, you know the vibe.

But you mel me nikudi Some popo na niko ubi Wait, some gal gale talk man Greg Gotta talk my shit and walk my way Yeah, boom, man, it drop like leg basic good again to one like game You lying, I can see in your eyes I got myself so let me be, let me die Give me peace, I don't want love, give me peace, yeah Find some peace, Bobby Mungi fete fisse but to hold the kiss jàmm ndekete du xari toog ñii wan jël ci sama biir fan la ma caabi féete tii nooy def ba xajal fàtte ci First we want to do My life just like a movie Well tell me what the truth is Yeah Ba def ñu naan lu but Ba cëg di mel ni guddi Sa bopp nañ ko ubbi Baby ki yéeg mais te fes day feeñ Never give up Hey, but. set bëggee bañ dimbali la te yëg yëg yëpp dem nañ stress si li ma gëm fenn c'est comme tëb ten si mere ko la deful dara dëgg rek ci life ki dëgg gore ki mandu bés bu goone di màgg xel bi jeex doole di naax doo mës a kawe ni naaj bés di nga ne lawee si paax santal ñi làkk pour leer la ñeer sa sondeel mu life last thing on the duty. My life just like a movie. Well, tell me what the truth is. Yeah. Adafnya na luduni. Pajag di mel ni gudi. Some ko nin ko Ouz dafa mel ne new fii mais nañ ko déglu quand même maa ngi koy remercier de passage bàyyi na fi ngandim ngandim maamu couple <laughs> shout out to Ouz Big Buzz sama gars yi mel ne loxo Ouz Big Buzz s'il vous plaît jaajëf gi di riir lu metti lu tiis duñ fàtte ak ñi siif liggéey di xiif iblis yee bu dee duñu jigit bi dënti di teg si tàkk ni bi dee di aksi rain suba gën a mën àndu ñetti aksi rain ma fi rey ni xaj bu dee xaati fees feebar jàng naa lu ne naa fi taaru Can you see it's good enough? Turn up the light for me Yeah, I surrender. ñi bëgg xam yëpp ak si sam gàcce lañ bëggoon gis teguñ ko bët ni ab sireen yar sama bopp ndax jub du deret du si sax si meen li gënoon jafe nekkul liggéey sax si meen ñetti at musique bi laa ko dañ koy changé at yi ñëw ñetti temps bi bukki laa boo tax ngay dégg xaj di mbëw ñetti at town bi dëgër këcc doo gis fu ñuy teddee dib bi mënul woon ñàkk comme galañ fu ñuy tëggee kaay ma wax la lu waral booy fippu wutali gaal yi dem géej sànni mbaal a tàkk Mali changé gis fi kanam am si ne may sabab si Can you see what's going on? Turn up the light for me, and I'm still alive for you.

am question pour public bi avant ñuy dem. xam nga baax a baax a baax. maximum de bruit pour Dip Doundou Guiss. les gars war na gën a ma foor nii na gën a foor nii ñu xool. non dañoo daajoo. dama bëgg ngeen tàcc bu baax a baax a baax ba ñëpp ñi nga xam ñoo nekk Dakar. yëpp dañu daajoo. les filles ñu fekk est disponible déjà te album bu naaj la tàcc leen bu baax a baax a baax a baax encore une fois. na continuer na dem na dem. yes sir mais Baara. Dominique waaw. yaayu baara DIP naw moore <laughs> frère ziar ñu delloo ziar bu wér félicitations déjà merci je suis fier de merci pour teewaay bi tamit balaa dara di xew uh-huh. ma def benn témoignage ñu uh-huh. avancé uh-huh. parce que guddi na gis ngeen kii nii hip hop Sénégal da ko amal njukkal kii dafa am lu muy ni ci hip hop bu Sénégal kii daf ci indi ba pare lenn lenn lim ci dëkk a indi moo di ful la àdduna boo ci nekkee da ngay am fulla ci li ngay def kii dafa ñëw ne affaire bi joob la te joob boo ci nekkee da koy respecté teel a tëdd teel a yeewu nekk ci sëgg ci ba tey mu am lii mu am ni gis ngeen lii musul am ci pop Sénégal di génne album ne yéen yéen a koy njëkk a déglu yéen nga xam jëndagoo leen yéen a njëkk a déglu album bi Tim Doudou Guiss gis le respecte beaucoup parce qu'on a grandi ensemble à travers les ba mu yegg ci tey mm. rap, R la mais dafa am respect am représentativité am reconnaissance mom da koy def dafa respecter nit ñi di représenter li nga xam modi Grand yof ak li wër Sénégal mais aussi am reconnaissance ci public bi nga xam ne moom ngeen doon tey ngeen tàccuwaat seen bopp tàccuwaat ku baax a baax am reconnaissance ci ñun ñi nga xam ne on est là depuis le début man baara kenn se ma lem boo ma yëgee ma yëg la boo ma yëgul yëguma la kii daf ma yëg moo tax ma ñëw nii nii la demee. merci beaucoup frère aussi fier de toi. yes sir. donc mais Baara yéeg-yéeg boobu si yow la commencé. Mm-hmm. ba ñu njëkk bëgg dem rajo mu tëñu moom lañ doon woo téléphone fekk moo Karim ñoo doon liggéey Karim xurum xaat ñu koy yaanal yàlla mu génn si lu mu ne. Baara si boobam lañ doon woo moom moo doon invité pour mooy mën a dem rajo Top FM pour mën a def ay freestyle wala yu demee noonu kon gars yi remercier leen ma Baara si. kasu leen Baara kasu leen Baara si kaw. loolu yàgg waaw donc euh, man nag maa ngi lay féliciter parce que bett ma. Ah. ñi ma doon interviewé si ginnaaw xam naa boo leen déggee album bi comme li ma ñëw rek mooy li ma wax léegi léegi xaar bi jaroon na ko wala jar ko parce que euh, tu ne déçois jamais. loolu tamit on est fier nous en tant que animateur hip hop wala ñi nga xamante ne ñu ngi ci hip hop bi am des MC yoo xamante ne comme yow. donc on te félicite. léegi comme li ko a waxee léegi mu ngi guddi. dañuy procéder ci li nga xamante ne mooy euh, yow nga résumé li nga xamante ne mooy li fi jot a déglu lépp parce que xaar bi yàgg na léegi nag say fans namoon nañ la nga résumé wax ak ñoom quelques mots. avant avant ñu avancé. boo gisee en résumé ba ma ñëwee dama toog parce que dama bëgg gars yi déglu album bi ba pare quoi dama bëgg album bu ñuy déglu quoi ñu déglu ko pare parce que li ma siy wax bëri na li ma siy raconté bëri na. ñu bëri ñu ngi doon naan dip fan la nekkoon lan moo tax ñu gën koo gis et cetera et cetera loolu yëpp boo dégloo album bi mu ngi si biir album bi tu vois après yeneen ak yeneen ak yeneen xëy na yooyu dinañ si ñëw après quoi mais boo déggee titre bi lépp fii la ñu fekk ça veut dire que yàgg na quoi ça résume bés ni ki tey ça résume TLK ça résume LNN ba egg fi ñu egg nii quoi te histoire album bi si boppam day boole histoire yooyu yëpp en même temps donc ñëw euh, ñëw ñu ñëw rek ne dañuy def benn genre. album boo xam ne non dañuy ñëw rap kese wala album boo xam ne dañuy ñëw def li kese non non ñëw wax rap ba pare bëggal tamit gars yi am jigéen yi wala ñeneen ak ñeneen mais pour dugg si te mu album bi si boppam mooy historique bi quoi résumé liñ jotoon fi ñu jot a jaar relation yi ñi dugg ak ñi génnaat li jot a xew yaa xam ne nit yi bëgg nañ ko xam xamuñu ko xëy na duñ mën a wax lépp et tout. mais am na yu bëri yoo xam ne xaw nañ ko waaw cof cof quoi ci biir. <laughs> yenn yi xam nga doo ko mën a wax si kaw tamit yëpp ñu ngi ci ñu ngi ci biir quoi donc mu nekk côté boo xam ne c'est très personnel pour man fii sa Sénégal lañ baaxoo am na yoo xam ne dañ ko bëgg di fësal ci kaw mais man sama public damay bëgg a partager ñoom tamit loo xamante ne ñu ngi may topp mais peut-être bëgguma mu yem rek si cadre non dip artiste bi nii rap yeeg wàcc seen déedéet ñoom am nañ seen ay vie am nañ seen ay problème am nañ ay objectif bëgg naa sama fans ma lay motiver bëgg naa fans mais c'est ak yow benn affaire bo xamné ne ya na yaa koy dund yow foog ne man dundu ma ko alors que man may dundou pire en fait et cetera et cetera et cetera quoi donc album bi bëgg na gaay déglou ko pare après voilà quoi. après ñu soko expliquer voilà. d'accord ba lolo looloo nekkoon résumé bi Baara. Ah. voilà ñëpp déglou nañ. Ah. la presse est là té ñom dañ ci bokk. Ah. balaa may dem ci ñoom damay démé ci ñaari jigéen yu jamba ñom ñu poser sen question ma ben question Mota ben question ben lañu mais ñaar lañuy poser posé <laughs> Mota si bu ko ngeen tàjju leen bu baax a baax et vous posez chacune une question. Merci beaucoup Didier Barra. alors Gaï, wow, Les lépp fii la Je fekk xam nga parcours mais est-ce que l'album bi ñuy un nii parcours wala un parcours. sentir une une maturité ak évolution waaw wala déet. dégguma dégguma. alors Dib quand je te regarde je vois une évolution exceptionnelle Dans lay xool di la sagesse.

ñu ñëw rek tëgg tama yi fecc après nax nit yi lekk seen xaalis dem seen dem suñu yoon non non non il faut que wax ak nit yi il faut que yi tam di gis seen bopp si li ñuy wax ak ñoom en fait loolu mooy loolu mooy kiiwu album bi quoi yeneen yëpp ay maquillage la affaire yu si boole la mais li ci biir dëgg-dëgg mooy dundu nit ki en fait ñu dem ci biir loolu noonu ba pare quoi mooy booy bi nga xam ne mu ngi mu ngi Sénégal xamul ndax suba dina tekki am na koo xam ne mu ngi hésité pour jël gaal gi am na koo xam ne mu ngi foog ne voilà ñu ngi koy vendre benn rêve boo xam ne xëy na existé wul kooku laa bëggoon waxal tam album bi quoi tu vois. exactement voilà. message est passé. Ah. dañoo déglu dégg top 5 déglu waat ah. dégg si naka. Ah. mu nekk ñaari tendance yoo xamante ne bi nga ah. toogee. xaw ma doon nelaw xaw ma doon PlayStation xaw ma da def mais top 5 yi ñan la. ak <laughs> xoolal ji xoolal du loolu de mais si naka. waaw mais loolu laay laajte. Eh, non non yow yaa yaa fi teg top 5. waaw nga teg si top 5. non top 5 bi moom leer na. kan la. ñëpp. ñëpp jàll non ñëpp duñu 5 ñëpp duñu 5 xaaral gars yi. non mais ñaata ñoo dem top 5. li ma leen ma top 5 bi li ma leen ma. top 5 yi ñan la numéro 5 kan la. Eh, amul numéro 5 bi. <laughs> non non top 5 bi da nga gars yi dem déglu.

Euh, toog nañ xaar ña nga nga ko liggéey ah. am na sax ñu wax ne ëpp na loolu est mën nañ xaar kon Dip tey mu tëgg stade bi ñu diggoon bon Dip bi ngay gis nii tey tey tey tey nga ko xaar si lu ne parce que damaa ñëwaat ko et eh, nekkul nekkul nekkul bi nga xam ne doon toog ay at wala ay weer doo ko dégg mu nekk ci leneen loolu yëpp am na lu ko waral quoi c'est du neen quoi mais

C'était un plaisir. Bravo, nous sommes très fiers, très contents. Merci. Et merci beaucoup pour tout l'équipe, le staff des de Nogis. Le Sénégal est fier. Merci beaucoup. Merci, important C'est important. Légui, il y a des journalistes, il y a des chroniqueurs. il est pertinent ce gars. let's go salaamaaleykum sama gars yi. Diop maa ngi ziar. Baara ah. public aussi bi nga xamante je pense pas que nak tay. dinaa mën a poser question parce que dégloo gu ma album bi comme il faut. mais je tenais quand même à faire une intervention bo xamante ne mënuma ko ah. intervention bi d'abord. abord li ci njëkk mooy féliciter le. merci parce que li may wax sank rek bi may interviewé gars yi ci ginaaw. maa wax nan tay artiste bu décidé ne day album. en tenant compte situation dëkk bi nga xamante ne mën na jaxasoo à tout rek kooku war nañ ko féliciter war nañ ko encourager di leen wax ngeen tàccu di dund gis bu baax a loolu parce que je pense jël quatre ans investir ko si benn projet projet boobu mérité na gars yi accueillir ko ni ko war a accueillir beneen affaire boo xamante ne aussi dama ko ciy saluer moom mooy damay wax chaque jour ne Rap Galsen du grand yi kese et avec cet album là gis nga tendre la main ku mel ni Ouzik Buzz. tendre la mel ni main ku mel ni Moré. et yooyu non c'est des collaborations yoo xamante ne ñun dañ koy bëgg. donc ñu ko ñu koy félicité waat bu baax a baax ci loolu. di wax nag man dinaa déglu projet bi peut être ci benn interview wala émission. on aura l'occasion occasion ñu gën ci échanger. merci beaucoup. merci. il est honnête hein. merci. Uh-huh. Euh, balaa ñu dem ci keneen. par rapport à tendre la main boobu il l'a fait avec Patzo. il a fait avec Samba Peuzzi. waaw il a fait avec BMJ. Mhm. tey jii nii ki mu indil kan la Bébé Moore. Ouzik Peuz. gars yi tàcc loolu bu baax a baax Malick. yes sir te mu ngi doon wax lu garaaw ci Bébé Moore nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. yes sir yes sir kon kooku ay affaire tàmbaleegul. Ah, waaw tàmbaleegul moom jamono. Ah. léegi ñu dem ci. Euh, waaw ci liste bi vite fait. rap 221 ñu ngi fi xoolal ma lan moo nekkaat foofu encore. yes sir waaw rap 221 mu ngi fi Sakim ñoom tamit ñoo ngi fi nee nañ amoon nañ ay question yes sir sama gars waaw wéru leen fat fat rek ku si nekk benn question bu gaawee waaw léegi man sax dafa am benn question boo xamante ne man ça me tenait à cœur quoi foog ma laaj ko parce que dernièrement soo seetaanee sama ay interview man personnellement euh, mun naa ne dama upgrade côté xel genre dama màgg quoi tu vois ku seetaan sama interview ak BMJ ba léegi mu ngi tourné mm-hmm. euh, te euh, bind diib man li ma jaaxal si Dip mooy tey bu toogee mu gis booy boo xamante ne woo na ko téléphone wala mu dégg ko ci interview mu ne Dip moo jógee tey ma jógee zéro ci héros loolu lan la lay def parce que Babacar nee na dégloogul projet bi mais jot na ci for ay affaire xam naa def ci bëggul xuus ma ni dégg naa ay affaire mhm. dégg naa ay wax yu profond mhm. tay boo toogee gis benn booy boo xamante ne yaa ko motiver te nee nga sànq euh, miroir nga indi quoi en résumé miroir nga indi mhm. lan la lay def profondément waaw ay milliards milliards milliards parce que tey ñun bëgguñu rek genre nekk benn artiste booy defal la fans club di la topp fép ñun bëgg nañ suñu fans yi yor ay entreprise bëgg nañ suñu fans yi nekk ay ministre bëgg nañ suñu fans si xëy nekk président wala lu mën lu baax lépp loo xamante ni nit mën na ko am man yeneen naa ko samay fans tu